billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar ci bés yu màgg yi nga xam ne ci lañ nekk ak ci weeru màgg wi mu nekk weeru koor tombeek tamit weeru avril xam ne suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci 20 avril la judd woon ni mu juddoo ci 12 rabiul awal ci weeru olof moom lu judd 20 avril ci weeru tubaab euh, kon ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaare ci ñaar yu mag yooyu nga xam ne moo ñu fi dajale tey mu nekk weeru koor ak weer ki nga xam ne moo ñu xamal lan mooy koor mooy sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jiital ci nuyoo yooyu yëpp nag monsieur le sous-préfet di jéggalu bu baax ndax boo convoqué nit war na ko fekk fii nii onze heures waroon na ko fa fekk mais teel na ñu jug lool ku nekk xam ne dëkk bi nu mu tëddee fi mu nekk nii mais ñi ngi jéggalu ci loolu euh, di wax ñi ngi ñëw ànd ak délégation bi nga xam ne moom mooy comité d'organisation gàmmu jëppal comme ni nga ko waxee mu nekk gàmm goo xam ne laa Mawlana Cheikh Ibrahima ñes moo ko tànnaloon waa Dakar pour ñu koy def ren nekk soixante et unième édition Euh, pour mu leen ko tànnalee dañ ne ko dañoo bëgg nga gàmmul ñi mu ne leen danaa xool mu tànnal leen ne leen 20 avril ci la yonent bi juddu ci weeru tubaab kon dee leen ko màggal gannaaw 12 rabil awal ci weeru olof ñu ngi koy màggal fële ci mi Medina Baye ci loolu nag wax dëgg yàlla am état yàgg cee taxaw yàgg ñu cee jàppale yàgg ñu cee dimbale ci yu bëree bëri tey nag ñi ngi ñëw ànd ak délégation euh, Jim juuf mu nekk secrétaire général Serigne Aliou Thiam secrétaire adjoint Euh, Cheikh Thiam président commission euh, restauration euh, Kadiani Sané adjoint président commission communication Khalilullah Seck président commission communication Ousmane Niane président commission finance Ablaye Bousso nekk membre ci comité d'organisation bi monsieur le sous-préfet dañuy bàyyi SG mu wax la yi nga xam ne nii moom mooy suñu bëgg-bëgg. asalaamaaleykum président euh, ñu sos si sa nuyoo boobu nuyu kilifa yi jotaay bi nga xam ne mooy la sous-préfet di ko remercier beneen yoon ci dal bi ñuy dalal nga xam ne tegtalu leneen lu mooy gëdd bi nga xam ne jox na ko suñu xew-xew yi nga xam ne ñoo suñu bokk taalibe yi ñu tasee fi euh, leen ñaanal yàlla na yàlla yombalal leen seen liggéey ba lii ngeen taxawoo diine nii Euh, mu feeñ ci bépp seen i jeexital bi ngeen def ndax xam ne ku taxawu diine rek yaa ngi taxawu jàmm ci dëkk bi yaa ngi taxawu dal te ñun ci yii ñuy yëngatu lii ñuy def yëpp diine yëpp su jàmm amul duñ ko mën a taxawee kon nag monsieur le sous-préfet ñu ngi lay remercier beneen yoon boo gisee ñu def suñ délégation bi ni mu toll nii te ba léegi sax am na ñoo xam dañoo des si yoon bi li muy wane mooy bés bi fu mu toll si ñun président introduire ko ni mu ko waxee loolu tegtal na lépp suñu sëriñ moo ko jàppoon moo ko njëkk a taxawee ñu nekk ci 61e édition ñu nekk ni judd nañ fekk suñu ay papa di ko def yàlla dimbali ñu dem a dem ba léegi mu mujj suñu ay loxo moo tax nag ñun at bu ne rek bu ñëwee rek dañuy bëgg daal def ko mu gën a yëwén ba ñu ngi am yaakaar xalifa bi ñëw war rek ko ñëw présider ak ñun pour ak yeneen sumb yoo xam ne am nañ ko te ndakaaru mu profité waale ñu mën a réaliser waale euh, euh, Euh, suñ ponk yooyu yëpp soo gisee nag ñun niñ ko defee peut-être par expérience xam na ne chaque fois bu ñu fi ñëwee am na yu bëri ñuy tënk ñu def ko ci benn document boo xam ne peut-être yow autorité bi ak ñi nga xam ne ko dina leen gën a yombal liggéey bi suñ ay expression de besoin la li nga xam ne soxla nañ ko euh, jógee war a jógee ci état bi moom lañ jéem a tënk nii ci document bi nga xam ne peut léegi mën na am sax du ma ko lire mais je ferai le ko par parcourir ko ginnaaw yéen ñëpp yéen ko yor di nga xam euh, démembrement bu nekk euh, lan la ñu démembrement état bu nekk lan la ñu séntu ci moom. Euh, gàmm gi comme ni nga ko waxee le 13 mais lañ ko jàpp le 20 avril moo doon date bi nga xam ci lañ ko doon def chaque fois mais yàlla def na ne ren tombé na ci biir woor weeru koor gi te jógee nañ ci ay ñaar wala ñett at yoo xam ne dañoo nekkoon ci Covid bi. mënuñ ko doon amee ni ñu ko ni ñu ko doon amalee moo tax ren ñu préféré toxal ko ba ci le 13 mai bi nga xam ne danañ ko doon dellu def delloo ko ni ñu ko doon defee naam jëppal lañ ko doon defee buntu kër baa ngeen suufu waaye depuis un certain nombre d'années sax jóge woon na fa ñu ko doon defee Daaru Xuraan école Seyda Mariama Niass ñu xamee waaye léegi yàlla def na tamit foofu màgg na ba am na ay chantier yoo xam ne projet boo xam ne chantier yi ñu ngi ci mu fay tabax lycée ak benn université islamique moo tax ak chantier yi mënuñ cohabiter ak moom loolu moo ñu pousse ba ren tam ñu xalaat loo xam ne duñ génn ci département de Dakar moo ñu pousse ci terrain xaar yàlla boobu nga xam ne yaakaar nañ ne mbooloo bi ni muy toll foofu mooy terrain bi ñu yaakaar moom dong moo ngi ci zone boobu moo tax nag loolu moo tax ñun ci niñ tënkee document bi yaakaar nañ ne ñu ngi ko tënk ci huit points. li mu bëgg mooy am effectif ay policiers yu doy. ci bés ba autour terrain xaar yàlla bi ak li ko wër pour mën a sécurité bi comme événement yi dama koy sax guddi ñu ko nekk jusqu'au petit bu ñuy ñëw ba ba ñuy dem ñu mën ci ci sécurité boobu waaye bëgg nañ tam ndimbal ci fluidité bi circulation bi zone xam ne lu la peut-être gàmmul guddi gi la mais bëccëg yi zone autour terrain xaar yàlla bi aussi un peu complexe circulation dañu mën a def benn plan de circulation boo xam ne euh, naam ko digg la mais dana dimbale nit ñi ñu ñu mën a ñëwee ba ni ñuy mën defee autour du terrain ak euh, bëgg su fa ñëwee mu nekk fa ba ci la laa demee au 9h euh, à 9h pour mën a permettre tàngoor yi ñu ngi ci jàmm xam nañ ne fajar gi tamit zone xaw sensible la nit ñi dem gàmm bi ñu day dem ba jusqu'au petit matin. dem ba ay vers sept heures huit heures ci la gàmmu bi doon na jeex mën na la boobu dispositif sécurité bi la nekkee léegi ak ni ma waxoon sax ñëwaat na mooy plan de circulation je l'ai dit tout à ci bés bi ba ci la laal nit ñi parce que côté parking bi tam day compliqué ko côté yi ñëw day bëri ñu ñu amul ñu xamee Sénégal yi ni ñuy dawalee yooyu ba amul sécurité police bi mën a fluide organiser rek mën na jaxasoo nit ñi mën nañu fa bëgg nañ tam si amoon trois motards yoo xam ne dañ ñuy dimbale mooy moo la président di wax euh, pour la xalif parce que xalif ñoo moom suñ koy dal bëgg nañ vraiment un motard yi ak délégation étrangère yoo xam nañ ci yeneen sit ñëw ñu mën leen dimbale daal seen situation mën na leen suñ dalee bërëb yi nga xam ne foo na xëtal foofu nga xam ne Dakar ci ci seen euh, déplacement beneen point bi nga xam ne évoqué wuñ moom mooy organisation matériel bi organisation matériel bi tente bi bokk na ci depuis at yi ñu ko mujj def defatul woon tente bâche yi doon def hangar suñ ci mënee am trois hangars yu mille mètres carrés suñ ci mënul am dimbal sérieux preneur bëgg nañ tamit am cinq estrade yoo xam ne yu cinquante mètres carrés la nañu am deux cent cinquante mètres carrés de estrade muy présidium bu nekk service de présidium bëgg nañ tamit quatre mille chaises dont cinq cent euh, VIP ay moquette soxla nañ ko barrière tamit waxoon nañu ci lu mel ni lu ñu bind fii deux cent cinquante barrière dinañ ko saa bu évolué maanaam suñu réalité parce que terrain bi dafa nekk une première fois ñu fay def euh, ko yàgg nañ ko organisé pratiquement ci proportion bëgg nañ tamit ba léegi autorité bi dimbali ñu ci su fekkee mën a am benn site boo xam ne proximité Euh, terrain boo xam ne danañ danañu mën a servir de cuisine wax naa ko sax mu ngi revenir chaque fois cuisine bi dafay am solo ci ñun ndax gan yi nga xam ne ñooy ñëwal ak ñi ne ci comité d'organisation bi yëpp ñun ñaare dañuy samp cuisine boo xam ne mooy euh, mooy ñaareel mooy suñu jigéen ñi nga xam ñooy section féminine bi te nekkoon ñu dëkkee Dakar kese dañuy am ñoo xam ne Pikine la jógee am ñoo xam ne Rufisque la jógee ñoom en général bu ñu ñëwee fa la ñuy nekk ba gàmm gi jeex lan lan demee gàmm gi ñu tekkee ba jotoon gars ñu lekk ba pare ci liñ doog a yeewee euh, moo tax na suñu amoon benn site boo xam ne euh, soriwul école ça peut être une école publique ça peut benn centre social boo xam ne daal danañ fa mën di togg mën a am saal yoo xam ne bu guddee danañ fa mën a euh, noppaloo veille gàmm gi vendredi bi. jusqu'au lendemain le dimanche. loolu matériel yooyu ñu soxla nag ñu wax na suñ ko mënoon am euh, au plus tard te jeudi ba jeudi ba suñ ko mënoon à partir jeudi bi loolu dinañu dimbali. Euh, monsieur le sous-préfet seen occasion su ngay wax noonu seen occasion nga mën a comprendre ne terrain bi naam gàmmu gi euh, samedi la mais terrain boo xoolee à partir jeudi ba lañ ko soxla. pour euh, installation yi nga xam ne ça risque de prendre du temps ak euh, tout ce qui autour du Gamou à part du jeudi daal suñu a net à nos dispositions loolu moom point 3 voilà effectivement sécurité mobilité ak organisation matérielle ñu jàll ci point 3 bi muy euh, électricité ak eau comme ni nga ko xamee rek ci événement yi liñ bëgg pour comme luy xew guddi la. li ñuy sàkku mooy éclairage daal clarification euh, boo xam ne danañu wàcceel ca gàmmu ga tànt ba fa muy amee ca teere xaar la koy leeral ak la ko wër yëpp daal comme guddi lay am ak zone boobu ñu mel bëgg nañ lumière bu doy daal bu baaxoon ñu entretenir ko bu doyutoon ñu jéem ñu ko renforcer la euh, te comme événement bi fi mu toll ñun waañ bi def ci am solo trop ndax euh, dafay am gan yoo xam ne dañuy jógee fu ne ñëw ci ci biir Sénégal ak à l'étranger waañ bi dañ fay nekk daanaka ñaari fan euh, waañ bi tam bëgg nañu dimbali ñu tamit ci éclairage bu doy comme hmm, bëgg nañ tamit ca bés ba comme cérémonie yëpp demandé Sénégal tamit ñu mettal ñu euh, zone boobu hors délestage pour ñu mën a mucc daal ci yoo xam ne mën na indi désagrément ca bés ba ñu ngi sàkku tamit su fekkee ne am na groupe électrogène boo xam tam mën nañ ko mettre à notre disposition pour éventuellement ñu pare à toute éventualité su ko amee moom mu mën ñu ci euh, dimbale ci éclairage bëgg nañ tamit ñu wàcceel ñu benn branchement bu triphasé ci fi gàmm ngi di amee tànt ba di amee euh, bëgg nañ ko nag ñu wàcceel ñu ko suñ ko mënee am trois jours avant à partir de jeudi parce que en général tente bi jeudi lañ koy commencé sax ñu demande éclairage surface dañu bëgg éclairage bu am doole parce que tente bi bu 3000 mètres carrés la ñuy def te ak yeneen yi nga xam dafay ñëw chaîne de yi nga xam dañuy ñëw dañ koy def direct. ak yeneen collaborateurs yi fay nekk yëpp bëgg nañ daal am ko courant bu doy comme ni ñu ko doon defee ak yi weesu yëpp. jeudi 18 la. jeudi non non jeudi 11. waaw. waaw normalement ci la liggéey yi di tàmbali ca bés léegi ci beneen point bi muy eau bi liñ bëgg mooy suñu mën a euh, defal euh, wàcc euh, mën naa ko wàccee maa ko wax comme courant bi. am fay borne fontaine ay robinet public daal ñaar. ci tànt bi ndax mbooloo mi dañ fay bari dañ fee nekk ñett fan ci liggéey bi ba ñeenti fan sax ak dindiwaat bagage bi bagage yi te dana am ay toilettes publiques nit ñi danañ soxla fu ñu jàppee danañ soxla loolu yëpp bu ñu am ñaari borne fontaine ci fi tànt bi amee na baax ak yeneen ñaar yoo xam ne euh, ca waañ ba lay nekk fa jigéen ñi toggee bëgg nañ tamit am ñaari camion citerne si possible ñaari camion citerne ak benn bâche bu ndox parce que lu tax ñu demandé bâche bi camion citerne yi xam ne ñoom mënuñu leen immobiliser foofu ñoom ñaari bu ñëwee dañuy bëgg a sotti ndox mi daal di dellu ñoom duñ fa fanaan duñ fa defee quelques heures tamit maximum yow yaa ngi mën a sotti tandis suñ amee bâche bi nag dañu mën a di dimbale ci ñaar ñetti fan yi nga xam ne dañuy nekk ci waañ bi ak liggéey ñuy soxla foofu yëpp ñuy mën a utiliser ndox boobu nekk ci bâche bi ci topp peut-être Euh, hygiène euh, environnement hygiène ak assainissement yi nga xam ne mbooloo mu toll noonu nit ñi di jóge fu ne xam ne danañ soxla am vigilance bu bu mat ci mbirum hygiène euh, environnement bi ak pour nit ñi fay ñëw yépp moo tax dañuy soxla douze toilettes mobiles douze toilettes mobiles yoo xam ne danañ ko mën a éparpiller autour de la tente bëgg nañ tamit euh, laata ñuy agsi ci alors boobu nga xam ne ñu commencé liggéey bi ci fan yu ko jiitu rek ñu mën a am daal liggéey boo xam ne dana am désinfection daal ak euh, ci terrain bi ak lu ko wër nga xam ne suñ defee tente bi daal danañ mën a mucc ci yenn désagrément yoo xam ne am ci comme tamit liggéey bi taalibe yi ñaare suñuy laata ñu def gàmm gi danañ ñëw ñoom jàpp ci liggéey bi nettoyé teree beeg yooyu euh, si say démembrement bu dee am na ñoo mën nañu si dimbale ci matériel boo xam ne danañ jàppale ci nettoyage muy demee ci ay brouette râteau brosse ak gants demee noonu ak ay masque ak ay produits d'hygiène ak phytosanitaire yooyu tam si luñ ci am rek danañu dimbale ci jàppale liggéey bi buñ paree ci point boobu beneen point ñu ci bëgg a teg mooy santé ak secours mbooloo mu toll noonu tant bu 3000 mètres carrés mbooloo mu ne toll noonu dajee fa mën nga daal da war a fagaru xam ne amaana lu ne dafa am moo tax ñu bëgg du ñu mënoon dimbale ci benn dotation en médicament pour les premiers soins production sanitaire loolu suñ ko amoon danañu dimbale bëgg nañ tamit euh, district bi. structures yi nga xam ne ñu ngi nekk autour de euh, ci zone bi si éventuellement su fekkoon ne am na ay accident yu am ñu mën ñu jëlal ñooñu nga xam ne éventuellement def nañ accident seen prise en charge intégrale gratuitement consultation ba ay rajo lépp loo xam ne daal dafay jar dafay aajowoo seen prise en charge buñ ci mënoon ni dimbalee jëlal leen ko en charge loolu tamit yittewoo nañ ko bëgg nañ tamit ci bési gàmmu ga bu amee ambulance boo xam ne dana fa mën a ñëw fanaan ak ñun ñu ngi def 10 euh, heures moom lañ yaakaar ne ci la fay nit ñi di jógee carrément jeex na gàmmu gi dana dem ba ci suba teel gi ñaare ay 7 heures 8 heures. waaw dimanche 10 heures 10 heures voilà euh, ba léegi tamit ci même ordre d'idée bi tam bëgg nañ tamit am fa ay sapeur pompier agent service di d'hygiène yeeg croix rouge yeeg daal suñ ci mën a am lim bu doy ca bés ba. Euh, guddi gàmmu gee gun ba keroog ñuy tasaabu daal bu ñu paree ci point boobu santé ak secours am na beneen point boo xam ne am na solo ci ñun suñu gàmmu gi mooy accueil ak hébergement euh, gàmmu comme ni ko président waxee léegi dafay nekk gàmmu yooyu nga xam ne ñun ci suñu wàll kër gi ñu bokk kër Cheikh Ibrahima des dafa bokk ci gàmmu yi gën a mag nga xam ne gàmmu yi ci événement yi def ci année bi à part gàmmu yi nga xam mooy am Kaolack di am Taïba Niassène gàmmu gi bokk na ci gàmmu yi gën a mag ñuy dem moo tax mbokk taalibe dañuy jógee fu ne di ñëw ñi nga xam ne tamit ñun dañuy dem di fekk yi dans les pays étrangers ñoom occasion la yoo xam ne tamit ci la ñu occasion mën a ñëw Dakar fekk suñu gàmm en mbokk yi jógee Gambie dañuy def délégation yu mag euh, Mauritanie kazalika am na ñuy jógee sax euh, Nigéria ndax président jógee na fa récemment bu yàgg bu bëri nañ ko promesse ne danañ ñëw moo tax euh, ñu bëgg tamit lu ñu mën a dimbale muy police muy gendarmerie muy douane muy eaux et forêt ci circulation taalibe yoo xam danañ ñëw ci biir soit ci biir dëkk bi euh, ak ci frontières yi. Euh, point bi ci toog mooy social bi wax nañ leen ko gan yooyu di ñëw yëpp ñoo leen di héberger ñoo yor seen dund ñëpp ak gan yi nga xam ne tamit dañuy jógee sax ba kaw Kaolack na Baye ñëw yëpp ñun ñoo yor seen seen seen i lépp ñoo ko yor moo tax nag. ni doon sàkku tamit ci mbirum denrée alimentaire bu dee am na loo xam ne daal mën nañ ci mën ngeen ci dimbalante ak ñun vraiment nous serions preneurs nga xam ne dinañu gën a oyofal euh, tuuti charge bi ah point bi mujj peut nekkul bi gën a néew mooy communication bi ndax ñun jox nañ ko amal na solo trop ci ñun euh, ndax ni ma la ko waxee dafay événement yi gën a mag ci ñun pays bi te xam ne ni tamit Euh, mbokk taalibe dañuy nekk un peu partout boo Sénégal ak dans le moo tax aspect communication bi day yomb peut gis nga tey nii bu ñu sañoon lii organes yi ñuy sollicité ngeen wax ne ñëw dañ fiy ñëw mais ñi nga xam ne ñoo gën a ci ñun nga xam tàmm nañ liggéey ak ñoom ay partenaires lañ ay médias la ñoo xam ne exclusivement activité euh, faydu bi la ñuy suivre ak euh, Walfadjri bi nga am ne suñ partenaire stratégique la moo tax ñoom lañ ci convier ñu ñëw mm. waaye suñ sañoon ci bésu gàmmu ga ci seen dimbal ngeen xool li ngeen ñuy yombalalee ba ñu mën a jot ci les médias d'état là lu mel ni RTS lu mel ni Soleil lu mel ni APS d'autant plus que ñu ngi am yaakaar nañ suñ ay kilifa dinañ jógee Kaolack ñëw teewee ko te bu ñëwee forcément war nañ leen accueillir ni la war a accueillir seen communication yi ñu fiy def tamit lu médias yi war a jot la pour relayer ko pour une large diffusion ñëpp mën si jot. Euh, couverture événement bi yëpp ci en long large lañ ko bëgg parce que dañ koy def en de temps cérémonie officielle bi mooy précédé gàmmu bi cérémonie officielle bi euh, les autorités étatiques pour ñu mën a am euh, une part large ci ay prise de parole nga xam ne ci kanamu kilifa yi balaa ñuy entamé gàmmu gi en tant que tel daal bëgg nañ ko nga xam ne à partir de 22 heures daal mën ñu ñëw jëlal ñu couvrir ñu loolu largement am na beneen point boo xam ne tamit am na solo ci ñun mooy euh, connexion internet bi xam nañ léegi connexion internet bi daanaka ñëpp ci li ñuy liggéey dañ leen jàppale moo ñuy jàppale bu baax Sonatel defaloon nañu ko at yi passé bu ñu mu defal ñu ko mu wàccal ñu ko benn ligne LS ligne LS bi mooy am capacité boo xam ne dana mën a jël euh, connexion bi nga xam ne euh, ñuy liggéey ak internet bi danañ ko soxla ni ñu ciy taxawee mooy taxawaay bi nga xamante ne moom moo ñu war en tant que autorité administrative waaye tamit en tant que euh, ndawu nguur gi donc nag déglu nañu ñi nga xamante ne ñooy comité d'organisation bi ñu tënk li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci euh, service su état yi service yi tamit kenn ku ci ne déglu nañ la te kenn ku ne également euh, wax nga ci li nga xamante ne li nga nar a def wala li nga yaakaar ne boo ko defee gàmmu bi dina yemb donc loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo ñu fi dajalee tey ci tënk rek am na loo xamante ne mën nañ ko jël euh, euh, doxal ko ci saa si li nga xamante ne ci ñun la wekku directement ak loo xamante ne tamit dañ koy jébal suñu ay kilifa yi nga xamante ne ñoo ngi féete ci kaw te yaakaar naa ne kenn ku ci ne tamit di ci jël ay matuwaay pour que euh, nganu xalifa général Faydatou Tidiane bu bu nekk ngan bu bu neex bu bu yemm te taalibe yi nga xamante tamit dañuy jógee euh, fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi kenn ku ci ne boo fi ñëwee nga mën fee nekk ci euh, anam yu yu rafet waaye nga mën a également dellu ci sa anam yi nga xamante ne euh, moom la ñuy séntu moom la yaakaar ci li gën donc loolu moom moo nekkoon solo ndaje bi ñu féddali suñu ngërëm waa Ansaar Dine ak taalibe ñaseen yi fi teew yëpp di leen gërëm di sant ci taxawaay ci diwaan bi waaye tamit ci biir réew mi waaye wata naa tam bitim réew donc ndax te xam nañu li nga xamante ni xalifa bi euh, mi ngi koy dox euh, ci biir Afrique euh, pour bañ a wax ci biir àddina donc te loolu yëpp yaakaar naa ne woote jàmm la defar nit la tàggat nit la te loolu la ñuy séentu ci suñu ay kilifa donc ñu gërëm bu baax a baax di sàkku ci ñoom ñaan ñaanal réew mi ñaanal tamit Afrique ñaana tamit suñu arrondissement bi yàlla def fi jàmm yàlla def ci réew mi jàmm loolu mooy li nga xamante ne moom mooy solo ndaje bi tey ñu leen di gërëm di leen sant